والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ أحمد البدوي إن شاء الله الفاضل ñoo ngi nuyu di la ziyaara di nuyu Serigne Fadilou Mbacké <coughs> mi nga dendal di nuyu Serigne Moustapha Diop ñoom ñaar ñuy jëwriñ ci daara ji ak yow mi nga xam ni yaay jëwriñu liggéey bi nekkal fii nekk ci ndigalu Sëriñ Muntaxa Mbàkke xafidahullah waraa waaye nekkal ñu fi ñun ñëpp nga xam ne mboolem coono yi ñu waroon a jànkonteel yéene ci wuutu ñëpp di yàlla defal di ñaan yàlla defal leen tawfiq may leen ndam ci liggéey bi lu kawe njot bi barkat Cheikh al Xadim radiyallahu anhu ginnaaw nuyoo boobu nag ak ziar yu tedd yooyu yu gën jot ci gën a rafet jëm ci yow jàll ba ci Cheikh Mahamadul Muntaxa ak ñu ngi seqal liggéey bi ñëpp Euh, mbooloo mi fi teew tey mooy kuréelu yaatal mbindum alxuraan kuréelu yaatal mbindum alxuraan nag kuréel la koo xam ne mi ngi sosu ci 2017 euh, la tàmbali ay liggéeyam. ginnaaw bi ñu koy def nag ñu am yéene na gën koo yaatal mool mool yu bari gisu am ma yi def nañ gis euh, tabaraka ak ak suuf ñu bëgg koo tasaare nag mu gën a tasaaroo ci réew mi. ñu ngi ci procédure it ab kaamil boo xam ne incha allah taala dañ koy bind ci turu yaatamil alxuraan fexe ko def ko nii lépp luñ ci def it duñ ci sakkuwuñ ci benn dërëm dañ koy séddale di ko joxe ngir jëm yàlla. bi nga xamee nag loolu tàmbali nañ ko lu jiit daara ji ubbi bi daara ji ubbi nag wagg wi ñuy bëgg a tàmbaliwaat ci liggéey bi nag sëriñ Fallou mi nga xam ne moom mooy jawriñ ji ci turu alaaji sëriñ Seck ñu ne nag nañ ñëw fii kuréelu yaatamil alxuraan ndax bay ci sa wow tànk bala ñoo tàmbaliwaat fenn ginnaaw daara ji ubbi na nañ ñëw tàmbali jàpp ci daara ji ñu indi ci li nga xam ne gis u la bii moom bokk plastifié wuñ ko waaye def nañ ko noo xam ne ku xale yi bu ñu wàggaree mën nañoo yàgg ak moom ndax mool bi baax na kayit yi matière kayit yi kayit gu baax la protège bi it alhamdulilah protège bu baax la boo xam ne du gaaw a yàqu ndax li ëpp ci téere téere yi xale yi protège ñaari fii mooy gaaw a yàqu fii ne protège bi ñu ko def ñaq wi du ko gaaw a mënal lu bari moo tax bii lim bi ñi ngi ci indi juróom-benn téeméer waaw bii bii juróom-benn téeméer la juróom-benn téeméer yoo xam ne ay nusxa la ñu tàmbalee ko ci liggéey bi bii noonu jusu amma la waaye moom euh, comme ay tuut tànk na fii ci daara ji nga xam ne bi daara ji ubbi maj maji xale yi sa yaram day daw ay juróom-benn at kese ay juróom-ñaar xale yi tuuti lii dafa bokk ci liy mën a ñoŋal téere bi mooy dañ ko plastifier nga xam ne incha allah taala moom ak yàqam xale bi du ko gaaw a mën a def moom it justu amma la boo xam ne dañ ko plastifié bii nag juróomi téeméer lañ ci indi bii moom ko juróomi téeméer boo boole lépp mu nekk junni ak téeméer ci ay justu amma yoo xam ne ginnaaw daara gi day tàmbali ñi ci ëpp ci ñoom diggante boobu lañ toll ñu fas yéene ànd ak daara ji incha allah laa luñ ci mën ci fuñ toll ñu ànd ñu ànd ko ak ñoom ci ay tolluwaay incha allah bala ñoo euh, bala ñoo soxla kaamil bi. ñaan ngeen ñaanal ñu ba kaamil yi mën a sotti ba boobaa ñu mën leen ñu mën a ñu nga xam ne ñoo leen jiitu ñu topp ci <coughs> ci ñun ci ci ñenn ci diggante bu jëmee ci wàllu wàllu baas yi it bi nga xamee ne dem nañ ci daara yu bari dañu gis ne mënoo daara joo dem jox leen ak lim ci téere yu daj daara yi waaw baas baa ngi ne doon ko fi ñëw euh, mooy mënoo mënoo foo dem rek foo toll dem fa waaw euh, jox leen lim bu tolloog daa euh, dong ya fa nekk. ñu wut ku nekk am téere boo xam ne dañ cee mën a roy loolu mu nekkoon yéene ji waaye bi nga xamee ne xalaat nañ xalaat lan lañ war a man a def ba satisfaire daara yi ñu ne kon nañu wut baas boo xam ne mbind mi def cee nekk mbind mi tàmbalee ko ca xaraf ya ndax boo jàngi bind fekk mbind mu wéy ba noppi muñ tër kay tër tër ba noppi ca xaraf ya xamoo ko mën naa jafe ci yow ñu xaaj ko ñaari safa ñaari xët benn bi jël mbind yi yëpp xaraf yëpp ba xam ne ku bëgg roy soppiwaat sa bindinu xaraf da nga ci mën a sukkandiku base yooyu nag bi ñu ko produire nag tasaare nañ ko fu baree baree bari ci Sénégal fu baree baree bari Sénégal fii indi nañ fi juróom fukki base yoo xam ne kon li ñu jàpp mooy xalxa bu ne mën naa am baas boppam gën jaa néew boo xam ne xale yi mën nañoo toog di ca roy incha allah taala xam naa kàddu yi lii rek moo nekkoon euh, kàddu yi li ci des ci mën la dese waaye ñu am yéene lañ bëgg ngeen ñaanal leen ba li ñu yéene lépp mën a sotti wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani ngi nuyoo tey siyaare sëñ Mamadou Badawi di lay jot li nuyoo sëriñ bu ci kilifa gi muy sëñ Mouhamadou Taxa doon ñëw di yegg si liggéey bi ci seen loxo ma teg ko sa sa loxo nga teg ko ci loxo sëñ bu ma jëm ci daara ji xam naa ni samay wax moom li ma waroon wax lépp si alaaji wax na ko jotaay jotaay bi nag bu dee liggéey bi ñu ne moom sëñ Moussa yi mooy mooy njiitu liggéey bi xam naa ne nag gannaaw ñu duñ ko fekk si xam naa du xam ne mu boolee ñaar yi rek <laughs> moo tax mu bàyyee ma ko waaye kàddu gi kàddoo ma kàddu gi tam nag moom gudd gàtt rek mooy indi si feeñal liggéeyu bu yaasin bi alxuraan ni ko suñu alaaji waxee ba mu tàmbalee ba léegi rek ñu am yéene senegal gépp dellu ci mbind ndax xam ne njàng moom mi ngi doom bu baax waaye mel ne da bàyyi mbind mi ci ginnaaw bu ko defee nag ko mel Alaaj nag ci daara la jógee xam ne loolu manqué loolu manqué la ah ñu ne kon nag nañ xool ci côté boobu ginnaaw côté bee ña nga cee dox te côté yëpp war a dox kon moom itam côté bii nañ ci jéem a doxal bi ñu ko defee ñu ànd kook ñoom ñi xam si ñoom itam xam nañ ne ñoom ci biir daara yi ñoo gën a xam li daara yi manqué la muy bind moom amatul te mënta ñàkk tax bi njëkk njëkkatee liggéey bi rek ñu ànd kook ñoom ni ko si El Hadj waxee booba tey mësuñ cee yokk ñooñu mësuñ cee eh, tay ba ñu yegg ci fii dañ def at mu jot ki ki gañee dana dana bind ab gisu kii nag ki mujj a gañee ci eh, troisième édition bi ñu ne ko mu bind gisu bi yàlla dogal bi ñu ko toppatoo nag ñu koy tasaare ci daara ji ci daara yi bi mu yegg ci daara ji nag moom ñu xam ne moom ci ñi ko gën a yoo bokk ndax ndax gannaaw du ñu moom du ñoo woo ne wutal ko ay téere yàlla dogee liggéey bi gi li mañ cee génne dañ koy yaakaar dañ yaakaar ci moom ko war tàmbalee kon moo tax alaaj sëñ ne nañ ko daal di indi indi leen ci lu mat toll ci mille cent yoo xam ci dañ ci gone yi te bëgg ngeen ñaaw ko bam ni mu deme demee mille bi mën na demee ndax ñu ngi ci yoon wi te itam nii lañ ko bëggee mu dem ba mois de Sénégal waaye nag bu ñu koy tàmb itam nag ñëw fekk gone yi ñu jox amee yii ñoom itam ñu dem ba soxla kaamil loolu daal la ne nañ la ko nañ la ko indil teg ko sa loxo te siyaaral la ko jox la siyaar bi nga jox ko sëñ Modou Mountakha wasalaamaaleykum wa rahmatulah xanaa li ma wax ñi ànd ci liggéey bi muy ginnaaw bu si Moussa moom mi ngi fi yéen sëñ El Hadj noonu ci la bokk ñu ànd ak suñu damtir moom mooy coordinateur bi ak sëñ Modou Mamoun Fall sëñ Mbacke sëñ Mortala Ndiaye sëñ Moussa Gaye sëñ Abdou Khoudous Sill ñoom ñoo ñoo ñoo fi teewoon ñi teewut ndax xataay bi kon nag ñoo ngi nuyoo tey sant tey siyaare wasalaamaaleykum wa rahmatullah alif laam raa kitaabun uxkimat aayaatuhu summa fussilat min ladun xakiimin xabiir allaa illa allaha innanii lakum minhu nadiirun wa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 alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaam wa ala ashraf al anbiyaai wal mursaliin wa ala aalihi wa saxaabatihi ajmaïn asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci turu samaahata cheikh Ahmed El Badawi ibn cheikh Mouhamed El Fadil di ra'iisu mujamma cheikh Ahmed El Xadim li tarbiya wa takwin di président complexe Cheikh Ahmed El Khadim bi nga xam ne yar moo ko tax a jóg ak formé sëriñ bi mu ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyu bi alxaaji sëriñ Seck mi nga xam ne moo nekk ci bopp liggéey bi C3S nekk ci bopp njaboot gi nga xam ne ñoo liggéey bi euh, nuyu bi mi ngi koy jaarale ci sëriñ Fallou sekk mi nga xam ne mooy jëwriñu alxaaji sëriñ bi mi ngi am mbégte lool ci seen jataay bii yàgg naa xam sëriñ yàgg naa xam sañ Fallou yàgg naa xam dara it ci lii nga xam ne mooy concours yaatal mbindum alxuraan te booba ak tey mi ngi bëgg a yàgg ndax ñu ngi ci juróomeelu édition bi ah ñëw na fa ay yoon ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha kon xam na dayub concours bi xam ne yitte ji nga xam ne moom la ko sëriñ jox ak njaboot gi mu di ci am mbégte loolu ndax waaru alxuraan fu ko waaye jiitale sëriñ Touba nga koy liggéeyal kon loola moom yàgg na ci am am ak cant yàgg na cee yàgg ko rafetlu yàgg cee def ak ñaan am mbégte it bi nga xamee ne liggéey bi indi ngeen ko fi mu liggéey boo xam ne concours bi moo ko jur alhamdulilah lu yokkuwul wàññiku concours bi moo dem ba euh, bindulu juz yi te bindulu woon na euh, samia bindulu tabaraka bindulu euh, amma <coughs> lim bi ngeen fi indikoon mu ngi ci sant bu baax di ci sant sëriñ di ci sant kuréel gi yor concours mbindum alquran karim muy lu am solo ndax ñëw na fii di fi jariñ ñaari yoon ndax gone yi daañu ko euh, jànge ñaaral bi it daañ ci jàng bind te fii programme bi da cee bokk xale bi jàng bind ndax sëriñ bi bu mu ubbee daara ji dafa wax ne dafa bëgg boole li rafet ci daara démb ak li fi rafet tey mu boole leen bind alxuraan nag di ko beqi ak di ko bind mbind mu rafet dafa kon ci li rafet ci daara démb kon sëriñ bi bi muy moderniser it da ko téyewaale nga xam ne gone gi bis bu nekk waajibaat ay warteefam yi muy def mooy tari bind tari wet tari raxas tari nafar bind mbind moom dañ ko bo boole ci programme bi nga xam ne bis bu nekk la programme bi it natt nañ ci xale bi saabu bu wattoo alxuraan dafa war a beqi mu ngi ci programme bi su beq it daa war a bind kaamil kon alhamdulilahi indi ngeen fi lii ah, di ko ko jàppale di ko jàppale sëriñ bi ci yéeneem ji mu am ci dundal alxuraan dekkal njàng mi ci njàng mu mu mu rafet ci qualité muy tajwid waaye it dekkal ko it ci wàllu mbind kon mi ngi ci mi ngi mi ngi ci am mbégte lu rëy barab bi it ci gàttal euh, muy daaree alxuraan ji lu toll ci juróom-ñetti téeméer yu manqué tuuti mi ngi fi ay tuutànk am na fi góor am na fi jigéen kon lii rafet na yi ñi nga xam ne da gën yëkkati lu mel nii indi ko fi te soxla ko fi lool sëriñ bi am na mbégte lool euh, mi ngi leen di sant euh, di leen gërëm sëriñ bi ñii ñooy samay àndandoo euh, te yàgg na ci concours mbindum alquran mi ci yi te yu bari yu jëm ci téere bi macha allah ñoom it ñëpp di ay sëriñ daara yoo xam ne koo doxoon ba dem ci daaraam da nga fekk muy jàmbaar joo xam ne macha allah day tareloo aw nit euh, alquran ju rafet di leen yar. Mm, kon sëriñ bi mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di ñaan waxtu nekk ngeen yokku ci zahir yokk ci baatin kër gi nga xam mooy seex mooy mooy C3S yàlla yokku ci zahir yokk ci baatin mooy wax ne yokku ci zahir booy dolli ko wërsëg yaram yi dolli ko kooku mooy yokku ci zahir yokku ci baatin mooy. di ko pas-pas ak ak sellal kon yëpp yàlla na yàlla doy la ko ci yéen ba lu ngeen man ren ci téere bi bu ëllëgee ngeen mën lu ko ëpp foofu te waxtu wu nekk tawfeexu suñu borom gàttan leen ci waxtu wu nekk it ngërëmal eh, ngeen di ko am ci lépp lu ngeen yëngal lu ngeen yëkkati ak lu ngeen teg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa asna xadimihi wa sallim aleykum wa wa barakatu ci turu sëriñ bi Cheikh Ahmad al Badawi te di leen sant te di leen gërëm di ñaan sunu borom sunu jataay bii bokk ci jataay yi ñu yàlla bi di jottali rek ni ko sëriñ bi waxee ak cant sant bu baax a baax ci liggéey bu rëy bii nga xam ne yi moom ngeen def nii te muy liggéey boo xam ne ba mu tàmbulee yàgg na lii daa doon meññat ci liggéey bu mag boo xam ne yéen ko doon def te mooy mbin yaatal ku def concours ngir yaatal mbindum alquran lu rëy rëy la te lu am solo la suñu El Hadj wax na ko léegi ci biiru waxam alquran moom bu ñuy wax ku ko mokkal mooy koo xam ne mën na koo bind te du ko gis ndax. ab dongab daara bu doxoon ba àgg ci dëkk boo xam ne ay jullit dañ fa nekk te amuñu téere alquran fekk moom mokkal na alquran lay ak mokkalam alquran mooy buñ ko joxe jumtukaay mu mën leen di bindal kaamil bi door a jàll loola nag day am lu koy may te day mel ne jamono day dox mu mel ne da doon deltu ginnaaw loolu moom ñëpp seetlu woon nañ ko seetlu nañ ne mokkal gi mi ngi bari waaye mbind moom daa desoon ginnaaw te mag ñi nag naka jekk dañuy wax ne alquran jàng gi mooy tax mu dikk waaye bind gi mooy tax mu dëkk moo tax ñu ci daan sonn ci di deqi ak di bind kaamil kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne am ngeen xalaatu dox ci ay jéego yoo xam ne dana tax mbindum alquran gën a yaatu dana tax nit ñi gën cee sawar dana tax dong yi gën cee jublu ba dox boobee jur lii ngeen lii mu jur nii muy téere yi nga xam ne bind nañ ko ngeen indi ko fi jox jox ko sëriñ bi addiya mu jëm ci daara bi muy du am solo mu fekk muy lu ñu soxla ndax barab bi moom ñu ko sëriñ Moustapha waxe léegi donc yi xaw naa limu te sëriñ bi moom moo leen amee lépp téere yi nii jànge sëriñ bi moo war bu di leen ko wutal kon lu ngeen ci def rek jàppale ngeen ko sëriñ bi bu baax a baax te daa doon dafa doon lu ñuy soxla loo xam ne waxtu wu nekk ñu ngi koy soxla ndax gone xam na gone ak aw téere ni ñu koy def ci gaaw gee yàq ak yu mel noonu mooy tax loo ci am lu mu bari bari du doy kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm te di ñaanal nag di leen ñaanal di ñaanal kër gi suñu mbokk El Hadj sekk ak ñi mu àndal liggéey bi ñëpp di jaarale ñaan googu ci yow ak nuyoo bi nga jottali ko ko ñaan ko suñu borom dolli ndimbal ak fi tawfiq ci barab bi ak liggéey bi. ba li ci yéeneem mu fas ko yéene liggéeyal lislaam fas ko yéene liggéeyal yoonu murid fas ko yéene liggéeyal alquran suñ borom defal ko ci tawfiix ba mu def ko noo xam ne day kawe jortam yéen ñi nga xam ne yéen a koy ànd ak moom itam yàlla defal leen ndimbal defal leen ko man a taxaw ci wetam ba lu liggéey bi laaj ci taxawaay ngeen mën koo def na ngeen ko defee ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi sant bu baax a baax di jéglu ci kàddu yi xam nga damaa damaa te a wax lool te léeg-léeg dañ may wax lool waaye ñoo ngi jéglu lu ci dëng rek ñoo ngi koy jéglu sëriñ bi te la ci jum nag ñoo xam ne mbaaxul sëriñ bi la waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd bu sell muy nuyoo bu lislaam ci turu a cheikh Mouhamadinil di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéene liggéey lislaam lépp ci tollu sëriñ bi mu mën koo def di leen indil kàddu ngërëm ak cant bu kawe kawe bu bàyyi ko ci moom di ko teg ci loxob sëriñ Fadilu Seck sëriñ daam mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ngir ñu jottali ko ci alxaaji sëriñ Seck yi nga xam ne moo jiite kër gu mag gi di C3S muy cant goo xam ne buñ ko dee tàmbali day sori lool day sori lool ci ay taxawaay yoo xam ne bu ci nekk rek yaayoo na cantu boppam jëm ci alxaaji seen te kon mooy jëm ci kër gi yéen ñi fi ñëw itam doon ñoo xam ne kenn ku nekk xàmme nañ ko ci tool bi kon ngeen ñëw ci seen kër fekk fi seeni bokk ak seeni njaboot ànd ak moom liggéey bi muy liggéey boo xam ne ni ko sëriñ Fadilu ak sëriñ Moustapha ak sëriñ Alaaji waxe du jar ma ciy dellu si dafa mënta ñàkk jamono da ko soxla waaye nag mbir mu nekk nekk ci biir moo xam la mu soxla ndokk bi ngeen amee yéene liggéey bi waaye jox ko ñi nga xam ne ñooy ñooñ daara ndax ñoom ñooy xam la nga xam ne soxla dañ ko lool te mënta ñàkk waaye jàpp naa ni lii moom bokk na ci yitte yi gën a am solo di daara gën a soxla alxaaji sëriñ nag boo ma koy sant ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ni ma ko waxee du xam fu may tàmbalee ndax moom mi fi toogee toogaayu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu lépp lu waay yëngu lu jëm ci lislaam moom nga koy defal waaye rawatina ak alxuraan alxuraan moom mooy mbirum sëñ bi ku ci yëngu wet goo ci yëngoo rek sëñ Tuubaa nga ci yëngu defe naa ne firnde ji tey jii rek gën naa feeñ ci bi ngeen ñëwee di def liggéey bu am solo bii. tase fekk waa Touba ci kanam ñoom itam ñu doon def liggéey bu am solo boobu ci tàggat sëriñ daara yi waaye nag li fi mujj am ci jongante bu jëm ci alquranul karim ki yàlla dogal mu jël eh, mën naa ko tuddee ndam la dëkk Touba doon ko indi tey di ko yët di ko jëbbal ci Cheikh Mouhamadul tax kon loolu moom daanaka jërëtul wax dara bayit bu sëriñ bi waxoon ne maa moom alquran rek fi mu nekk mi ngi njëkkandi sama xel waaye xaw ma bu ma ci bu ma bu mu wax ne maamu alxuraan rek firnde ji moom mën nañ cee teg suñu bopp te léppam noonu la mel lu mu wax lu ne rek bo ba jant bëccëg la loolu kon ak cant la waaye alxaaji sëriñ c 3 dafa bari ay taxawaay ci alxuraan bari ko ci lislaam te mu yaatu lool lool lool lool du ma dugg ci di ko lim misaal mi ma ci joxe rek mooy fii ci barab bii ñu toog barab bii ñu toog tey waa Touba ca kanam ñoo ko def ñu jàppee ko ci liggéey bi muy barab bu am solo bi ñu ne waaye fii nga jàkkaar lool mat na juróom-ñaar wala juróom-ñetti bâtiment yoo xam ne mbooloo mu néew moo xam ne alxaaji sëriñ mii daa bokk ci jëri jëwriñ ya ñuy wax tariqatul muridiya ñoo ko sasoo jàpp naa ne bu ngeen génnee sax war ngeen xool tabax yi nga xam ne mooy dëkkuwaayu sëñ daara yi ak barab yi ñu toog di xewlu waaye dëkkuwaayu ndongo yi seen bopp ñu tàqale leen fi góor ñi war a nekk fi góor jigéen ñi war a waaye ñu dëppale ko dundinu dongam daara wu tolloog nag ci jamono jii ñu toll nga xam ne li mu soxla yépp ak li ñu ko war a waajal lépp dañ ko waajale noona ndax li ma waxoon sànq seen liggéey bi lu nekk ka ko xam boo ko ko joxee bu jëfee jëf ji dana dëppoo ak na war a mel liggéey boobu yi doon liggéey bu am solo boo xam ne njëlbeen nga juróom-ñaari milliards genn wàll nañ ko xayma woon ñoom ñoo ñuy ñëw sëriñ bi tuddee leen taliatul muridiya Cheikh Mountakha nag moom baat yi muy jëfandikoo léeg-léeg moom day doy waar ci saa sa lañ wax rek mu daal di koy bind talia talia yaakaar naa ñooñ loxaa ngi fi danañ ko tekki lu xóot a xóot la te ñu jéene sëñ bi incha allah caabi fi mu nekk nii ñu ko gisee xam ne lu yéeme la moom nag mu ci jëwriñ ci jàmbaar kon jëfam ci alxuraan lii rek doy na ci seede ju tey ji ñëw yokkuwaat ci kon daal ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko teg seen loxo di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci liggéey bi ndax nit mën naa am bëgg lu baax am yéene waaye du am ñu ko ca nekkal ñu ko man ñu ko xam te bokk ci ak moom yéene kon ñu ngi koy sant bu baax kon daal moom sant rek lañuy def ak gërëm ñaan nag pour borom yokk kàttan gi yokk xewal yi àggali yéene yi te gën ñoo gàttandu ci barkeb Cheikhul Khadim radiyallahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun